xam nga euh, Mamadou Awa. Mhm. sulli woon nañ fi mbirum Adji Sarr. président Ousmane on en parle même plus non président Ousmane Sonko dem ba ne leen du sama procès seen procès la gis nga bii dina nekk procès wu Mame Mbaye Niang dina dem ba. dina nekk say kombale xoolal dina nekk procès par A ou par B. parce que ñun lu ñuy def yëpp ñun xam nañ ko ils sont un seul un seul et unique objectif mm -hmm. comment empêcher le président Ousmane Sonko à être candidat aux élections présidentielles de 2010 de 2024 par A B ba Z président Ousmane Sonko lenn na ko mun a tere nekk candidat 2024 mm-hmm. te loolu ñaanuñu ko yàlla te moom wax na ko mooy bàkkanam bi mu bañ ko amee parce que ñun Pastef mm-hmm. investir nañ ko mooy suñu candidat c'est notre candidat. gisoon nañ ñu investir seen candidat ah te mujjul dem. non ñun sa gisoon nga waaye ñun suñu bopp lañu xam ñeneen ñi seen lu ñuy def ak lu ñu dul def. doolee yamul loolu nga bëgg a wax non pas doole yamul ku nekk yaa xam nooy tojee sa bopp jinax ñun xam nañ ne ñu tojee suñu bopp jinax. merci beaucoup.